jàmm ji info point net informer, éduquer bëgg a jot xibaar yu sell te bu ànd ak njàngalee ak mu dal jàmm gaawal gaaw abonné suñu bii nga xam ne moo di jàmm ji info. ñu ngi lay nuyu tur naka la tey ñu fekkal fii nga xamante ne moo di foire internationale de Dakar nga wax ñu ban pavillon nga nekk ak lan moo leen fi andi ak foo leen jóge euh, maa ngi tudd Sadio Kambodj euh, di jóge ba Sédhiou. Euh, maa ngi nekk pavillon Sénégal ci foire internationale édition 2019 euh, ñi ñëwoon nag ñun euh, def si exposé exposé bi am nañu ay différents produits sachet bi ngeen di gis moom mooy foño bi foño cela veut moom mën nañu ko defalee laax mën nañ ko defalee sànqal lii nii ngeen di gis moom mooy miel lem pur la boo xam ne njaruñu ko defuñu ko dara lem bi boo ko naanee da ngay sentir sa yaram ne da ngay am benn cawarte boo xam ne tey mënoo ko sentir sentiroo ko avant bii aussi euh, duutir la huile de palme gis ngeen ko bañ nañ bañ nañ ko ba dañuy def suñuy adresse def suñu numéro téléphone parce que yaakaar naa ne consommateur bi ou bien bi bu ko consommé moom dana xam ne vraiment il a consommé un produit local boo xam ne amul benn boo xam ne tey mën na ko andi jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram lii aussi gis ngeen ko moom i aussi def nañ euh, étiquette bi def numéro téléphone bi def adresse bi maanaam ñu bëgg leen woon ne rek produit bu ñuy def newul loo xam ne dañ ko fóot wala newul loo xam ne ça nuit à la santé de la personne euh, gis ngeen ko bii aussi siwo bu mag bi la donc ce sont les différents produits yoo xam ne moom lañ ñëw depuis le début de de de, de la foire euh, ñëw exposé ko fii nii vraiment participer aussi avec la COSEC COSEC nekk benn mouvement boo xam ne tey daay encadré les forma transformatrice di leen gunge di leen soutenir ba euh, ñoom ñu mën a réussir seen mission loolu daal mooy loo xam ne tey moom mooy suñu mbébét tey te ñuy di ñaanal aussi le directeur de du COSEC yalla may ko wér gu yaram ba mu mën di gunge euh, les gens au niveau de la transformation ñu ngi leen di gërëm di leen san di leen jaajëfal yéen aussi yéen ñi nga xam ne ay journalistes ngeen da ngeen ñëw fii di wasaare vraiment information bi di ñu defal publication. ñu leen di gërëm di leen sant ci loolu quoi jaa ngay jëf merci beaucoup. non bii mooy dixième année dixième participation parce que non seulement dañu am benn reçu de commerce ak NINEA boo xam ne dalay permettre nga participer ci foire bu la neex dans le pays bu fekkee dem nga nag ba am ay moyen da am doole. mën nga di participer ay yeneen foires yi nga xam ne sont les foires internationales waaw. effectivement xam nga mbirum warum njaay moom euh, des fois mu dox des fois du dox mais actuellement vraiment exposé bi standard bi euh, baax na rafet na visiteurs yaa ngi ñëw naam mais acheteurs yi nag moom vraiment dafa wàññeeku suñu chiffre d'affaires dafa wàññeeku par rapport à à ces années précédentes waaw. bon je ne pense pas que l'eau moo chère parce que c'était le même prix benn prix bi moom lañu doon jaaye mais dafa fekk ne euh, producteurs ak productrices yi ñoom ñoo bëri maintenant donc l'offre est supérieure à la demande la population kon produit yi bu ëppee bu bëree rek loolu ça on a du mal vraiment à écouler nos produits dans le marché loolooy jafe-jafe moom mooy jàngat bi nga xam ne daal moom lañ gis waaw merci beaucoup jërëjëf ñu ngi leen di gërëm di leen sa jaajëfal merci soxna si tur bi naka la. Ndeye Anta Seck. waaw bëgg nañ ko torop dàll yi ak euh, kii yu aar yi ñuy jaay yëpp nit ñi bëgg nañ ko moom vraiment parce que seen dàll yi en général nit ñi dañuy wax moo gën a nekk qualité moo gën a dëgër dañ koy mën a sol ay année waaw. Euh, waaw moo pour ki may jaayal moom dàll la fi indi ak euh, déco artist yu maison yi ak tableau yi et moom yooyu la fi indi. boutique yi ngay jaayal waa bu na méttiwul waaw des fois moom xam nga liggéey mooy lool des fois moom ñu xaw a jàppanteeg yooyu mais après ça su mel ne moom maa moom dañu xuloo chaque jour <laughs> waaw ñun ñaar dañu xuloo chaque jour mais après dañu nekkaat ay xarit waaw. Euh, pavillon vert lañ nekkee. boo duggee si porte bi rek soo avancé tuuti ñun ñoo nekk ci ci fond bi foofu lañ nekkee si pavillon vert. produit yi ñuy andi est euh, na pour sénégalais yëpp moom parce que ñoom ñu si ëpp ñoom ñooy ñëw di ko jënd si fii. Euh, papa ñu ngi lay nuyu tur bi naka la. waaw Fallou Sylla Fallou tey ñu fekk la fi nga xamante ne mooy foire internationale bu Dakar euh, édition 2019 euh, tey ñu fekk la mel ne yaa ngi yëngu ci wàllu maroquinerie parce que fii Sénégal ngeen di defaree seen matériel yi. waaw lii yëpp ngay gis fii lañ ko defaree village artisanal Soumbédioune kii GIE la GIE maroquinerie bi village artisanal Soumbédioune je suis le président Fallou Silla yi ngay gis yëpp foofu fii lañ ko defaree Soumbédioune Dakar. voilà édition 2019 bi mooy seen première participation. waaw bi mooy suñu première participation ñëw COSEC moo ñu accompagner pour ñu mën ci participer daal. est-ce que attente bi ngeen doon xaar euh, gis ngeen ko ci début bi. waaw gis nañ ko ci début bi ndax xam nga visiteurs yi moom la ñu ci ëpp ñëwee buñ ñëwee dañuy jaaxle dañu xam sax lii fuñ ko liggéeyee kon premier kii bi li nga ci am mooy loolu te moo ci ëpp doole sax. ñu xam ne lii ñu ngi koy artisan yi ñu ngi koy liggéey te liggéey bu set la te fii lañ koy defaree village artisanal Soumbédioune kon loolu rek euh, gagné la bu bu rëy daal. Euh, léegi est-ce que mën nga ñu présenter li nga xamante ne moom ngeen di defar ak li ngeen koy defaree produit bi ak matériel bi fu muy jógee exactement. waaw yi ñuy defar comme saag yi nga gis yi c'est des sacs en croco yi croco yi moom fii lañ koy jëlee élevage la si Gérard lay jóge fële Casamance ñu am permis bi pour mën ko defar. léegi am na accessoire yoo xam yi moom day jóge Italie accessoire yi fa lay jóge ak doublure yi nekk ci biir cuir bi day jóge itali moom it fa lañ fa ko gars yi di indee di ko jaay léegi ñu koy jënd ci la ñuy mën a def léegi liggéey liggéey bii daal vraiment ceinture yi yëpp fii lañ koy defaree ci matière yooyu la cuir vache bi cuir euh, vachette bi moom lañuy ñuy utiliser di ko def ay ceinture ak croco tamponné bi am yoo xam ne si day croco tamponné vache der bu mag la vache ñu tamponné ko daal ci yooyu la ñuy liggéey vraiment di ko def liggéey bu am solo daal di ci woow ñëpp rek ñu ñëw xool si ko xam ni sénégalais yi fii am na am na am na production bu baax bu fi am waaw qualité waa sénégalais yi xam nga ñoom dañ bëgg a jënd à l'extérieur est-ce que mën ngeen yéen garanti ne produit yi ngeen di defar c'est c'est la même chose que yi ñuy jëlee à l'extérieur wala mën nañ ne sax c'est mieux wala ñoo ëpp euh, peut-être durée de vie que yi nga xamante ne extérieur lañ koy jëlee. waaw fii moom liñ lay liggéeyal fii moo ëpp moo gën a nekk durée de fii ndax li ngay jënd extérieur marque boobu ñu lay jaay boobu ñu lay jaay du originalu marque bi fabrique kii la rek contrefaçon la te ñëw modèle boo bëgg boo ko indee fii ñu defaral la ko defaral ko ci matière boo xam ne di nga ko yor ay ay at ati at te loolu moo ëpp solo mais nag nit ñi ñu ngi koy comprendre léegi ñu bëri ñu ngi ñëw di indi seen modèle gannaaw tubaab yi sax dañuy indi seen modèle u indi ko ba fii ñu defal leen ko nga xam ne dina gën a moyen ñoom cher mais dañ lay indil modèle ba indil la accessoire yooyu mu àndal yëpp nga jël saag bi defaraat ko ba mu mel noonu def ko vrai vrai vrai cuir bu dee croco nga defal ko ko ndax tey jii Birkin am na saag yoo xam boo ko bëggee jënd ay 7 millions CFA boo ñëwee fii am ko moins de 500000 da ngay ñëw fii léegi nit ñi ñi ngi am si ñi ngi am boobu kii sénégalais yi tamit ñi ngi ñëw léegi vraiment di bëgg suñu liggéey bi ndax léegi wax gis nañ ni set na te na meloon tamit bu njëkk léegi changé nañ ci lu bëree bëree bëri. vraiment ñi ngi ci daal ñuy góor góorgóorlu di ñaan rek affaire yi gën a avancé di ñaan tamit ñuy gën a am ay partenaires sénégalais tamit ñëw su mel ni jun di ko seet si di ñëw xam ni foofu du pour tubaab yi pour sénégalais yi la il faut nu ñëw xam ni ay produits yu baax a fa nekk vraiment dinañ fa gis loo xam ne daal nañ ni fii vraiment yéex nañ fee ñëw ndax ku ñëw fi naan lii fu ñu koy defaree kon xëy na visibilité tamit dañ ko manqué mais ñu ngi ciy liggéey pour nu ñu mën a wane ba ñëpp gis ni foofu ku ñëw di nga am lu baax daal. ñu bàyyi la nga euh, lancé benn appel wax euh, suñu mbokk internet yi ñuy seetaan fan lañ lay fekk bu ñu ñëwee fii ci foire internationale bon ñun ñoo ngi fii GIE maroquinerie ci stand Sénégal avec COSEC foofu ku fa ñëw di nga ñu fa gis loo bëgg ci produit bu baax rek dinañ ko am na fi dal sur commande tamit dañ ko fiy def lépp lu waay bëgg bu dee fekk ko fi boo commandé ñu defaral la ko waaw di remercier tamit yéen ñi ñëw di ñu interview affaire bi gën a gën a jëm ci kanam ba ñëpp di ko seetaan àdduna bi <laughs> jërëjëf. waaw chaque écologiste boo ko gisee dama am fu ñu commencé quoi naa fii lañu ñu ñun suñu association si lii la commencé si papier bi donc ñuy liggéey lii di liggéey lii ba mu yàgg ah, ñu dégg ne président dafa génne benn dafa wax ne nañ moytu mbuus bi nañ ko bàyyi ñu ne léegi gon ñun papier bi. duñ ko bàyyi de mais dañu wut luñ si dolli comme environnement bi la wax pour protéger ka ñu ne ah, kon nañ seet leneen ñuy toog di xalaat di xalaat ñu ne léegi dañuy dem jël saaku ceeb bi moo war moom moo tax ñaar recyclage dañuy dem jël ko si marché yi jël ko si kër yi nettoyé ko jaaral ko fi ñu ko war a jaaral jël ko def ko ay saak duggax moom si biir dëkk bi di ko woon gars yi neneen lii moo gën mbuus boo ko utiliser ba pare mën nga nettoyer denc boo soxlawaatee suba nga yóbbu te doo indi benn jafe-jafe si environnement bi quoi au lieu toile bi loolu moo indi nga gis ñu bind sac écologie loolu moo ko indi. waaw moom lañ ñëw présenté mais boo gisee ñu boole si yeneen bagages yi xam nga Sénégal aussi dañ naxaree nañ ma baal si ñi ma ko sañ wax dañoo xaw a naxaree kii daal parce que dañ indi solution teg mais ni mu war a demee dëgg-dëgg demewul noonu indi nañ ko teg mais terewul ñu ñaa ngi utiliser mbuus wan nañ leen quand même man waxaam bi ma dëkk wan nañ ko ñëpp mais dafay mën ni laal intéressé wu leen mbuus bi moo leen gënal ah ñun tamit bu kuy liggéey ku ne da nga bëgg a la sa kër ñu ngi koy def di koy def gars yi fekk sew ñu si duñ ko bàyyi parce que loolu base bi nee nañ jël leneen dolli si bu ko defee au moins ah ñu soxali atelier bi tuuti loolu la quoi. waaw bon bu ma yeboo ma ne am nañ ko parce que euh, déjà ministère de l'environnement jox na ñëw na jox ñu ay machines fekk se nañu si lool indi nañu ay machines jox ñu appuyer nañu bu baax daal mais moom aussi mu ngi def lu mu mën mais comme li ma la wax sànq rek Sénégal moom. dañoo xaw a naqaree liggéeyal trop mais ñu ngi am appui gouvernement bi moom. ba récemment nii rek am na suñu yenn membre yoo xam ne ñu ngi woon ba cees di def benn formation concernant environnement bi man demoon naa daaw man yeneen trois personnes mais ren deux personnes rek ñoo dem def nañ ko plus def nañ presque une semaine si wàllu environnement bi ñun moom ñu ngi liggéey moom te yaakaar naa fees si kanam tuuti dina am ay résultat quoi. revenu Sénégal. non pourtant seerul def nañ boobu même yoo xam ne cent franc lay jar def nañ ay saak yoo xam ne cent franc mën nga ko moo na naree dem ji bon dem dugg si biti bi jënd mbuus bu mag bi bu cent franc bi après nga pare dem sànni ka mbalit mi mu dem si poubelle bi du gaaw a seey xam nga day indi ay jafe-jafe mais bu dee saako bii nii boo ko jindee cent franc boo paree da ngay nettoyer teg bu subaa boo soxlaa nga demaat gënul. léegi ku bon ku ñu bëgg a gis moom da ngay ñëw Wakaam boo ñëwee Wakaam en face gendarmerie Wakaam boo ñëwee foofu di ñu fekk quoi incha allah rabbi ku ñëw rek dinga ñu fekk foofu.